ko ñi ko bëgg bari na mais comme ak Bathie Seras mu amul ci àddina maag Bathie. la <laughs> kaay dem envoyé ma sa diggante ak Bathie Seras làmb ju métti ja. non làmb kii moo ko andi woon. mais est xam nga ne Liss Ndiago dafa xaw a ndóor Bathie Seras. est ce que ndóor bu baax rek ba si suuf mu mu dëppandiku est ce que mën na loolu li Bathie def Bathie coñc bi rek day bëri. mais tey buñ la buñ la avance Liss Ndiago est ce que ko nga ko waa xam nga avancé dañoo bari. Liss Ndiago avance am dégg naa ko Onde le ko booy Rëbës ak booy yëpp seen avance dégg naa ko. caatu Rëbës. waaw si ñëpp seen avance dégg naa ko. mais lan moo tax gars yi bëgg lu poussé ci booy yi. waaw mais booy laa tollal fu mu toll nii la jox te ku amul licence du la jox chance. booy xam seen licence lan lan nga tëddee licence. ah mais dafa am licence licence xam nga licence su mbër ak licence su mbëru càmbar càmbar yi bokkuñu xam nga. mais selon su ma la tegaloon ñooñu ban booy moom moom nga ci bëgg may chance waaye xam nga ñu ma ci bëgg bari na man bañu ma kenn na promoteurs yi xam ni ñuy organiser seen combat xam ni ñu koy gérer ak prix ba am na prix yu ma dégg yoo xam ne Liss Ndiago combat bu yéexee ba tey prix ba la prix ba ndax xale yooyu booy bëri ak ñoom dañ la war jox cachet bu baax nga téye ko mën a préparer bu baax ndax ñoom dañ lay préparer xam nga. mais est-ce que mën nañ gis Tapha Gueye mañ daan gis comme bi nga wax léegi moo Baye Seyas est-ce ko gisaat. ah mën nañ ko gisaat ça dépend rek combat yi mën nañ ko gis ci combat bu ne mais Tapha Gueye Baye Seyas loolu mënatu am de. mais bu ma jógee ci loolu lan moo waraloon sa teewaay tey fii. ma xam nga Bamba dama samay xarit yoo xamante ni man mbër laa trois fois champion d'Afrique battu lama lama Atanas Assane Bamba laale Balla Aruna à Burkina Faso yooyu dem nañ dem nañ fu ne def ay demal équipe nationale. kon tey bu Bamba defee initiative bi ne sécurité ñu war a sécurité ay kilifa ñu ngi xam ne ay 500000 nga ci war a fay man xam nga ne du ma yëkkati 500000 naan maa ndax kër ga njaboot ja dañuy aju xam nga nu mu demee. xalaatuma ko mais Bamba bu jëlee loolu def ko ci dooleem ak ñu ko jàppale def ko ci dooleem jël mbër yëpp tey ni ma ko gis ay mbër bëri na ay ñoom laa sax da nga fi nako réel la nga fi nako réel la nga ko bëggoon gis chaque jour mën na nako réel laa soxla mais tey boo gisee dama bàyyi combat bi waaw waaw xam nga xam nga xam nga loolu dafa am loo xamante dañuy kontaan loo ci moom ci Bamba Bamba bu jëlee bàyyi léppam jógee Italie Frette le mio tuta benn tuta posto ñëw pour ay daar ñu ci lu caar ak sécurité loolu lañ ci sant yàlla ndax ñu bëri waroon nañ ko def am na borom doole yoo xam ne mënoon waroon nañ ko mën mais coono ji lañ ciy bañ te Bamba la jëntuwul coono. ngay wax ministère des sports. ministre des sports laa ba xamul ma Matar Ba sama xarit la dama bëgg mu ñëw jàppale fils fils nag doom la te doom boo amee da nga war a jàppale. waaw waaw waaw da nga war a jàppale ko jàppale ko xam nga fils daal war nañ ko jàppale daal ànduna gépp war nañ jàppale fils